seetal wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara cangatug njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci am lu kawe sa njortu waaye nee na de am na ndombo goo xam ne ndombo njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu këyit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boole vingt-quatre heures maanaam benn bis képp di nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi fan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw waa waaye nee na feebar yi yëpp yàlla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde jabet ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg a gis nag ma nga ca cité Aline Sow waaye képp ku bëgg a jokkoo ak moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal. ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéenekaay équipe national bu Sénégal la journal bi fësal ca wu njëkk wa ak jaloore ji nga xam ne yàgg na ko amal ci football bi ndax xam ngeen ne bu yàggul dara duma nañu duma yu métti équipe nationale bu Brésil équipe nationale bi nag ndam yu mag yi mu am. ci atum 2002 ak tey jii ci équipe yi gën a mag ci àdduna bi mi ngi toll ci juróom-ñett ndam yooyee nag mën nañu ko dooree ci demi-finale bi doon dox ci diggante Sénégal ak Nigeria loolee Coupe d'Afrique la soxaloon équipe nationale bu Sénégal am ndam ci kaw bu Nigéria ñaari bal ci benn la ñu ko dóoroon te jamono joojee nag Nigéria kenn attanu ko woon ndax dañoo amoon ay ponkali jour ponkal yooyee mën nañu ca lim Okosa Kanu Ogawa ba ca George Finidi jamono joojee Nigéria kenn attanu ko woon waaye équipe nationale bu Sénégal am ndam ci kawam ñu jugee ca Coupe d'Afrique boobee dem ca Coupe du Monde ba jàkkaarloo ak équipe nationale bu France am ndam ci kawam Pape Bouba Diop moo dugaloon bit ba am ca match boobee match ba jeexee benn bal ci dara waaye ca coupe du monde boobee ba léegi jàkkaarloo nañu ca ak Suède dóor ko ñaari bal ci benn Henri Camara moo doublé woon ca match boobe ñu delluwaat ci sunu ñaareelu coupe du monde bi doon amee ci Russie ci atum 2018 ñu jàkkaarloo fa ak Pologne bu ñoom Robert Lewandowski gagné ko ñaari bal ci benn waaye mbir mi jeexagul de ndax xam ngeen ne équipe nationale bu Sénégal jàkkaarloo na ak Égypte bu ñoom Mohamed Salah gagné ko gagné neex lool ndax coupe d'Afrique bi ñu jël ci kaw Égypte la ñu ko jëlee te ñoo ko xañit mu dem ca coupe du monde ba waaye ba ñu ca noppee bu yàggul dara jàkkaarloo nañu ak Brésil dóor ko kon équipe nationale bu Sénégal yàgg naa am ndam waaye yàgg naa amit ndam yu mag ndax équipe yu mag yooyee ma lim yépp équipe nationale bi gagné na leen nañu ñaan nag loolee wëy ñuy wëy di am ndam yu mag loolee dina baax lool ci footballu Sénégal waaye journal bi tamit fàttewul ñancoo Sadio Mané moom këlëbam di Bayern de Munich bëgg-bëgg moo di jaay ko waaye bëgg-bëggum ñancoo Sadio moo di toog ca Bayern de Munich doxal kon jamono ji xëccoo la ci diggante Bayern de Munich ak ñancoo Sadio Mané ndax waa Bayern de Munich li ñu bëgg moo di jaay ko waaye doomu Sénégal bi xelam jugee ca Bayern de Munich nekku ci jamono jii loolee la journal bi xamle waaye journal bi tamit ñëw na ci lig 1 bu Sénégal tey jii la ñuy door nag vingt-quatrième journée bi maanaam ñaar fukk ak ñeenteelu bëccëg bi benn match képp nag mooy am tey jii bu 17 jotee lay door maanaam 5 heures la match boobee di door jàmbaar mooy dalal sénération foot mi nga xam ne jamono ji moo nekk ca bopp classement ba ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay Aliou Cissé la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Aliou Cissé nag jinn la ci éliminatoire li ko waral moo di amal na ca juróomi campagne waaye campagne yooye yépp nag dafa qualifié ndax yóbbu na équipe nationale bi ci ñetti coupe d'Afrique yu bokkul waaye yóbbu na tamit équipe nationale bi ci ñaari coupe du monde yu bokkul campagne éliminatoire yooyee nag Aliou Cissé la mu ca jongante ci ay match mi ngi toll ci trente-neuf fanweer ak juróom-ñeenti match am na ca trente victoire maanaam fanweeri ndam matchu niil maanaam témboo li mu ca am mi ngi toll ci huit juróom-ñetti matchu Aliou Cissé am na ko defet moom bari lewu ko ndax benn defet képp la ca am kon Aliou kenn du moom ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe Benjamin Mendy le surnal bi fësal ca wu njëkk wa moom nag xam ne dafa nekkoon ci loxo yoon démb nag la ñu ko génne setal ko wecci moo tax journal bi nee na dañu ko tuumaloon nag ñaari at moo ngi nii duggul ci terrain football ñu xëy rek ne ko yow kat li ñu la doon tuumaal defoo ci dara taqe woo ci laale woo ci naada rien defoo ko ci loolee nag tax na yàq nañu carrière doomu France bi ndax ñaari atu yàlla moo ngi nii duggul ci terrain football tey jii ñu xëy rek setal ko wicci loolee la journal bi xamle ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fo Mirror Sport Harry Kane ak Kyle Walker la journal bi fësal ca xër wu njëkk wa ñaari doomu Angleterre yii nag la waa Bayern de Munich bëgg a jëlee ca Premier League ba yóbbu leen ca Bundesliga ba ñu doxal ki ci njëkk nag moo di Harry Kane moom Tottenham ak waa Bayern de Munich dooroon nañu waxtaan ba defoon nañu offre sax waa Tottenham gàntal waaye kat waa Bayern de Munich bàyyeeguñu ba léegi li ñu jàpp moo di bu ñu defee ci doomu Angleterre bi quatre-vingts millions de livre sterling mën nañu ko am te jamono ji nag ñoo ngi càmbar loolee te bu yàggul dara nag directeur général u Bayern de Munich toog na waxtaan ak président wu Tottenham tudd Daniel Levy ñoom ñaar waxtaanee nañu mbiru Harry Kane waa Bayern nag ba léegi bàyyee ko li ñu bëgg moo di xaatimal ko contrat waaye bu ñu ko amee ba noppi nag li ñu bëgg moo di Kyle Walker mi nekk ca Manchester City ñu xaatimal ko contrat bu dee Kyle Walker moom jox na kàddum waa Bayern de Munich ne leen bëgg naa football ci seenub club. waaye journal bi nee na ba léegi nag Kyle Walker waxagul dara waa Manchester City waaye Bayern de Munich moom ñoo ngi waajal ñaari dossier yooye li ñu bëgg moo di ñoom ñaar ñëpp ñu xaatimal leen contrat laata merkato bi di jeex. waa Arsenal bu Mikel Arteta wit ñoo ngi ci journal bi ñoom nag démb am nañu gan muy doomu pays ba bii di Jurian Timber xaatim na foofee contrat li ñu def ci moom nag ba jëlee ko ca Ajax Amsterdam mi ngi toll ci quarante cinq millions d'euros loolee officiel na waaye tey jii tamit mën nañoo am beneen gan ndax Declan Rice ay mbiram lépp yemb na xaatim nañu contrat bi li ci des moo di visite médicale yi su lépp yembee mën nañu ko officialiser tey jii ndax li ñu bëgg moo di laata ñuy def pré-saison ñu yóbbaale leen ñoom ñaar bu dee Julian Timber moom jamono jii jouru Arsenal la ki des moo di Declan Rice te lépp mën naa yemb tey jii bu ñu sukkandikoo ci journal bi. ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Alcaraz la journal bi fësal ca wu njëkkoo waaye journal bi tamit wu ne ci waa Real de Madrid ak doomu Angleterre yi nga xam ne jot nañoo football ca club boobee Bellingham nag moo mujj ñëw waaye ki njëkkoon ñëw mi ngi tudd Cunningham moom moo njëkk a football ci Real de Madrid waaye nekkul ne moom kese moo fa jot a jaar ndax ci diggante bi Owen ak Beckham yëpp jaar nañu fa ak yeneen joueurs yoo xam ne ay doomu Angleterre lañu waaye Jude Bellingham moo mujj ñëw ci Real de Madrid en tant que joueur boo xam ne doomu Angleterre nga kon nag waa Real de am doomu Angleterre waaye jamono ji moom Bellingham moo tëjagum bunt bi ndax moom képp mooy doomu Angleterre bu contrat lëkkale ak Real de Madrid loole la journal bi xam xamle ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay moom it Alcaraz la fësal waaye journal bi tamit ñëw na ci capaaculik turki gi di Arda Güler jamono ji nag dafa jommal waa Real de Madrid ci entraînement yi ndax gone gi dafa am ay qualité gone gi mën naa dribbler mën naa passe te day dugal ci entraînement yi kon jamono ji nag jommal na waa Real de Madrid waaye moom nag mën naa am wërsëg bu yaatu ngir match amical yi nga xam ne Real de Madrid ñoo ngi koy waajal mu football ca ay minutes yu bari li ko waral moo di Ceballos dafa blessé te blessure am boobee nag dafa mitti lool te tanee gut léegi kon gone gi ay buntam ubbeeku na ngir mu doxal ci pré-saison bi loolee la journal bi le journal bi tamit ñëw na ci wujju Real de Madrid yi muy waa Atlético de Madrid ki leen tàggat di Diego Simeone nag jamono ji benn bëgg bëgg-bëgg képp la am mu di lan njiitu club boobee dem ca Tottenham jëlil ko doomu Danemark bii di Emil Højbjerg li mu bëgg moo di ñu indil ko ko mu teg ko foofe en tant que numéro six mu doxal ca Atlético de Madrid jamono ji loolu la Diego Simeone bëgg bu dee waa Paris moom dañoo bëgg góol bi nekk ca Séville tudd bu no nekk doomu Maroc li ñu bëgg moo di xaatimal ko contrat bu dee Luis Enrique mi leen di tàggat moom mu ngi xaar signature yu bari loolee la journal bi xam le ndax waa Paris li ñu bëgg moo tabaxaat seen club boobee mën a jongante ak seeni wujju ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Xavi mi tàggat Barcelone la surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa six départ nag la ñuy waajal maanaam juróom benn jour yoo xam ne dañoo bëgg a ko ak moom ñii ñu jaay leen ñii ñu able leen li ñu bëgg moo di kat wàññi effectif bi nga xam ne am nañu ko ndax Barcelone jamono jii dafa bëri ay jour lool te su noo defee loole ba noppi Xavi dina gën a mën a liggéey ki ci njëkk nag moo di Franck Kessié moom ñoo ngi koy séentu ca Juve ndax Juve dañu ko bëgg keneen ki moo di Julian Araujo moom gan la sax ca Barcelone moom ca Las Palmas la ñu koy séentu keneen ki moo di Nico Gonzalez moom ñoo ngi koy séntu ca Porto keneen ki moo di ko Collado moom waa Betis Séville ñoo ko bëgg keneen ki moo di Clément Lenglet mi nga xam ne daaw ca Tottenham la ñu ko able woon able gi jeex ñu delloo ko waaye jamono ji nag door nañu waxtaan sax ak waa Barcelone ngir jënd ko moom jege na lool ngir dem ca Tottenham keneen ki moo di Pape Lô Touré moom ñoo ngi koy séentu ca Girona su fekkee Oriol wu ñëw na moom mën naa dem foofee ca Girona muy Pape Lô Touré jamono jii loolee la waa Barcelone di waajal bu ñu sukkandikoo ci sport. ñu jugee sport jël Mundo Deportivo Bernardo Silva la fësal ca xët wu njëkk wa moom nag mi ngi xaar waa Barcelone yëngatu ngir jublu ci ay mbiram su loolee amee rek. doomu Portugal bi noppi na ngir dem ca Barcelone doxal te fan yi weesu moom ak agent wam di Jorge Mendes toog nañu waxtaanee mbir moomee moom bëgg-bëggam moo di football ca Barcelone te agent wam di Sorso Mendes li mu jàpp moo di waa Barcelone bu ñu ñëwee City dina ubbi bunt bi ngir ñu toog waxtaanee ëllëgu gone gi. bu dee gone gi moom bañul Barcelone waaye faaw Barcelone yëngatu jublu ci ay mbiram su loolee amee rek gone gi noppi na ngir dem foofee doxal loole la surnal bi xam xamle. ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Lukaku la bi fësal ca wu njëkk wa. doomu Belgique bi nag jamono jii dafa soppi xar kanam xelam daal li ca nekk moo di dem ca yuufe li ko waral moo di jiwoon tooli mi nga xam ne mooy directeur sportif u yuufe moo ko wax xaar ma may ma file ak semaine maanaam benn ayu ma lijjanti mbiru Vlahovic jaay ko waa pari su ma jaayee Vlahovic Paris dinaa la jëlee Chelsea xaatimal la contrat nga ñëw ci yuufee doxal loole nag moo teey xelam bu dee Vlahovic moom juboo na ak waa pari ci lépp waaye Paris moo mënagul yëngatu jëm ci ay mbiram li ko waral moo di pari su bëggee Vlahovic faaw mu jaay Ekitike ba pare su jaayee Ekitike mën naa am Vlahovic te Vlahovic nag su demee pari rek ubbil na buntu bi Lukaku loolu nag moo teey jëm jamono jii bu dee waa Inter mi ko bëggoon te mu football ci seenub club daaw ñoom jamono jii dañoo tonk lool maanaam dañoo jaaxle jaxasoo li ko waral moo di ñoom li ñu xamle woon moo di suñu jaayee Onana Manchester United xaalis ba ñu cay am ci Lukaku la ñu koy def te jamono jii daanaka juboo am na ci cinquante cinq millions d'euros ngir Onana jugee Inter dem ca Manchester United jàppale Eric Ten Hag jamono jii nag xelu waa Inter dafa teey lool ci mbiru lukaaku ndax agent wu Lukaku bu ko waa Inter woowee duñu ko jot Lukaku ci boppam it bu ko waa Inter woowee du ñu ko jot jamono ji nag seen xel tey na lool ci ay mbiram waa Lazio de Rome bu Ciro Immobile it ñoo ngi ci journal bi ñoom nag dañoo bëgg doomu Argentine bii di Castellanos gone gi nag ku ko xamul ma ngay football ca Girona daaw bi Real de Madrid di jàkkaarloo ak Girona ñetti bit la dugal ca match boobee te daaw nag def na saison bu baax ndax dugal na treize bit waa Lazio nag ñoo ko bëgg a jëlee ca Girona yóbbu ko ci seenub club mu doxal ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport la fësal ca xët wu njëkk wa journal bi dafa ñëw ci mbir mu doy waar bi am ci diggante Inter ak lukaaku ndax waa Inter li ñu xamaloon lukaaku moo di